rêve ultime pour le Sénégal lan lay nekk la dernière question ñu tëj waxtu wi jeex na. mon rêve pour le Sénégal c'est que le Sénégal continue sur la voie bi mu nekk parce que jàpp na ci yoon. maanaam troisième mandat. je ne parle pas de troisième mandat parce que j'ai beaucoup de kilos par rapport à cette question là est-ce que du yàq sa émission fi nga ko tëral parce que na ma posé question moi je suis quelqu'un qui ne croit pas à la limitation des mandats. deuxièmement dama la wax ni la. Sénégal gii dama gëm ni fii mu toll ci trajectoire am ku mu neex nga dégg ko ku mu neexul nga dégg bañ ko dégg di wut nag démocratie bi nga xam ni day dellu gannaaw wala day avancé sunu debaa nekkul débat wu démocratie mooy fan la Sénégal jëm danga nga ne ma votre rêve mon rêve c'est que Sénégal s'en sorte et profite de sa virage bi nga xam ne ci la nekk pour s'installer dans le lot des pays qui sont capables de sa porter réew yi nga xam ne dañuy mënal seen askan dara te Sénégal a ngi tabax boppam pour mënal askanam dara mhm. donc kenn waru ko tëj ci ay troisième quatrième mandat c'est la réduction de débat loolu débat bu tuuti la par rapport ak sama xel ak sama xalaat fi mu toll merci beaucoup kàddu gu mujj gi